ñoo ñëwoon tay sét ci fambay mi nga xamni dañoo dégg ni dafa wër euh, Fa Mbaye ba nga joggé Dagana ba légui ak sa fièvre bi ñëpp jaaxlé won di xool ban solution la def pour pour pour fajj la ba tax nga joggé dégg Dagana ñëw fi est-ce que réellement da nga wër fambay salam salaamaaleykum wa Sénégal nuy naa leen yéen ñëpp maa nuy yeen nuyu yéen ñëpp wa ndé Bane euh, wëru ma dé wax dëgg yalla gën ba. Ah.